waaw déglu naa ko cest dire foofu nag dama fay taxaw dafa seetlu bu bu bu baax partie bi nag partie bu mu amal solo la ndax euh, Sénégal dañoo toll ci moment yoo xam ne moment maanaam laver cerveau lañ toll maanaam ji nañoo laver jikko yi xam ne jikko yi fa fa maam ñi jikko yi maam yi yoroon xale yi léegi moom lañ yor parce que xale yi xaalis fanku leen boo leen joxee ñu lekk la nga yor dem woteel ku leen neex boo leen joxee tiset ñu ñu jël sa tiset xotti ko dem xaalis ba nga leen jox moom la ñuy jël dem jëndee ji ko tisetu Pastef au lieu di leen jaay tiset mais yow xaalis ba nga leen jox pour ñu sol sa tiset moom la jël dem jëndee ji ko tisetu sol tisetu Pastef léegi loolu dem ba jaaxal leen ñu ne léegi nañ xool ñi nga xam ne gor ñi nga xam ne baax nañ ñu monté leen ci audio wala ñu monté leen ci vidéo wala ñu monté leen ci ay photo ngir yàq seen i der parce que nger na jamono ji képp koo gis mu ànd ak Sonko côté bu ne danañ ko ko peegee ngir yàq li nga xam ne mooy image am ci côté bu nekk nag parce que nag côté image bi ñu yaakaar ñoom ñun ne ñun ñi ànd ak Ousmane Sonko fa lañ nekk nekkuñ fa mooy xaalis peg nañu ci xaalis ak côté yooyu mënuñ ñu ci am léegi ñu ne nañ daw peg lañ ci yàq seen image moo xam seen voile moo xam lu mënti nekk Cheikh baara ojo bi mu wax noonu donte moom la tey laa gën a gëm ni tey la gën a gëm ni li muy wax nekkul nekkulu ko ci ci Sonko nekkalu ko ci Macky Sall mais daf koy wax ngir réewam parce que yéeféer bi tuub tey wala chrétien bi tuub tey dugg ci diine lislaam daf na la bu ko toppee jëfi démbam toppee ko jëfi tayam lépp lu mu daan def donte dafa rayoon junneey nit sax yàlla jéggal la ko junneey nit yooyu kon toppatuñ ko jëfi démbam doo waroo jullit bi waroo koo xoolee bëtu reykatu nit bi li nga ko war a xoolee mooy bëtu jullit bi tey kon ki nga xam ne démb ba mu bi mu bi mu bi mu bi mu comprendre gut affaire yi te aussi tamit bu caaxaan jeexee dëgg des ñu waxante dëgg Ousmane Sonko bi coowam ak Adji Sarr génnee sénégalais yi bu ñu dee 100 pour cent la 80 pour cent yëpp avant ñuy dem ba ci am lu leer moo xam journaliste bi la moo xam euh, presse ki bokk ci état la moo xam sëriñ bi la moo xam citoyen bi la kenn ku ci nekk sa xel doon na la jox ñaari xel ñaari wax ndax moom la wala du moom kenn ku ci nekk njëkk nag yàlla di àtte daf ñoo bàyyi ak suñuy xel suñuy xel yooyu ñu bàyyee woon nag baara am na droit wax ak avis de confiance am koo xam ne nii dégg nu ñu koy waxee si français wax ak koo xam ne ni am na ci wala am na ci moom confiance comme vocal la xamal ko ne ko lii ak la waaj a génne bi moom lu tax génnewul tontu baara ak lam wax baara damaa war tontu ko loolu vocal fu amee ñaara nit ñooy vocal ñaara nit ñuy vocal nag kenn ki lim wax ba baara tontu ko loolu lan la nañ gën a wax jooja ba pare soo di gën a waxu baara ji te baara seex baaraam mi lim lim lim audio ban ban danger moo ci nekk ba sénégalais yi nekk fii di kawti kawti di wax di di wax nangam. mooy lan si waaw moom dem pour fo. pas dem pour fo. daf ne waaw waaw waaw. gars yi mënuñu dem Maroc. waaw yi tëj nañu. waaw mënuñu dem foofu fi ne moom mooy Mbour. ba tey tudd ba tey tudd turu Ousmane Sonko de gars yi la wax c'est-à-dire il faut ñuy ñuy ñuy ñuy analyse wax gars yi la wax comme bu ne gars yi moo tax ma ne la waa ji wax ak moom il faut ñu moom moom ci boppam bu fekkee moo fitale ojo audio jàmbur na gën a li mu wax baara ba baara ba baara na ko gars yi. da yaakaar ne piège lañ ko tegal. non du piège li yàgg na audio bi du léegi audio bi yàgg na du audio léegi. couvre fa couvre-feu la waxoon kañ la couvre-feu 2019 la woon couvre-feu. a yàgg mën na fekk bu fekkee audio audio léegi la même bu fekkee audio wu léegi la nañ xool ba xam baara ma woon bu waxaatee comme nii moom la wala du moom point du leneen parce que li may wax toujours rek maanaam génne audio wu nit génne. waxu nit gën a vidéo nit gën li ëpp importance mooy innaka la ala xuluqin azim jikko bu nekk nit gis nañ ne waa man ñoom ñoo taxaw ne baara du dara benn simple euh, sëriñ buy ñaan la boo xam ne dem na ba jëfi doxatul mu retourné ci politique nangam-nangam mënuñoo wàññi dara waaw ku la mënta wàññil dara da nga taxaw pour yàq image am man de man Cheikh Niass bu ma nit dara aw ma soxla ci yow loo def bëgguma koo xool bëgguma koo gis mais kon gis nañ ne maanaam baara dëgg yi muy wax ndaw ñi ndaw ñi da ci concentré wu dëgg yooyu am na lu mu leen di déranger lu mu leen yàqal kon il a yàq image mooy baara mooy ndaw ndaw ñi nga xam ne ànd nañu dëgg ànd nañu ak Pastef ànd ak projet bi nga ne Ousmane Sonko indi nañ leen ko tey lañ la gën a seetaan tey lañ la gën a soutenir tey lañ la gën a gëm ci sa wax jooju ngay wax lu dul yow si ci boppam yaa génn ci télé wax sa làmmiñ ne man seex baara Ndiaye maa wax wax ji te dama koy assumer te tey génn naa ci xeexal dëgg dëgg waxuma xeexal Ousmane Sonko de génn naa ci xeexal dëgg dem ci xeexal safaan ba heure boo ko waxee nag boobaa sénégalais lu leen neex ñu wax ko mais tant que wax ji génnewul ci gémmiñu baara mbooleem ku ko doon partage na ko gën a partage mbooleem ku ko doon seetaan na ko gën a seetaan mbooleem ku ko doon gëm na ko gën a gëm ndax wax ju ñaaw ak tuuma yàgg na ci gor waaye nag buñu lay séntu ci gaalu xaj buñu la la cay fekk mooy nga toog waxal sa bopp yow sa làmmiñ te su doon moom di ko conseil mooy wax ji bu mu ci tontu sax bu bu ñu ko dalalee ci plateau bu ñu ko ci bu mu ca wax na wax ci li mu a wax rek toujours mooy liy jëriñ réew mi